peñu ma saar juróom ñaar ginnaaw loolu ma gis ñeenti malaaka yu taxaw ci ñeenti xiblaay àddina si ñu téye ñeenti ngelawi àddina ngir ngelaw du wol ci kaw suuf ci géej mbaa ci genn garab ma gis it meneen malaaka muy yéeg jóge penku yor màndargakaayu yàlla jiy dund mu daldi wax ak baat bu xumb ñeenti malaaka yi ñu joxoon sañ-sañ ñu yàq suuf ak géej ne leen bu leen yàqagun suuf si ak géej gi ak garab yi néeg leen ba ñu def màndarga ci jëwu ñiy jaamu yàlla sunu boroom noonu ma dégg limu ñu ñu màndargaal ñu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay junni ñu jóge ci giiri bànni Israyil yépp fukki junni ak ñaar lañu màndargaal ci biir giiru Yuda fukki junni ak ñaar ci giiru Ruben fukki junni ak ñaar ci giiru Gàdd fukki junni ak ñaar ci giiru Aseer fukki junni ak ñaar ci giiru Naftali fukki junni ak ñaar ci giiru Manase fukki junni ak ñaar ci giiru Simeyon fukki junni ak ñaar ci giiru Lewi fukki junni ak ñaar ci giiru isakar fukki junni ak ñaar ci giiru sabilon fukki junni ak ñaar ci giiru yusufa fukki junni ak benyamin ginnaaw loolu ma xool gis mbooloo mu réy ba kenn mënu koo waññ ñu bokk ci xeet yépp giir yépp réew yépp ak kàllaama yépp taxaw ca kanamu ngàngu ma ak mbote ma ñu sol ay mbubb yu weex di màggal te di yëngal ay cari garab ci seeni loxo naan mucc gaa ngi ci yàlla sunu boroom bi toog ci ngànguune mi ak ci mbote mi noonu malaaka yépp taxaw wër ngànguune ma ak mag ña ak ñeenti mbindeef ya ñu dëpp seen jë ca kanamu ngànguune ma di jaamu yàlla naan amiin na cant ak ndam xel ak ngërëm taraanga kàttan ak doole féete ak yàlla sunu boroom ba faw amiin noonu kenn ca mag ña ne ma ñu sol mbubb yu weex yi ñooy ñan ak fan lañu jóge ma ni ko sang bi xanaa yaa ko xam mu ne ma ñoo di ñu jóge ca metit wu réy wa fóot nañu seen mbubb ba weexal ko ci deretu mbote ma loolu moo tax ñu nekk ci kanamu ngangu neem yàlla di ko jaamu guddi ak bëccëg ci këram te ki toog ci ngàngune mi dina leen yiir dootuñu xiif dootuñu mar jant mbaa weneen tàngaay du leen lakk ndaxte mbote mi nekk ci digg ngàngune mi dina leen sàmm yóbbu leen ci bëti ndoxum dund ma te yàlla dina fomp bépp rangooñ ci seeni bët